mbokk yi ñu ngi fii ci yëmbal sud et fii ci nga xam ne moom moo nekk station bu yëmbal bi et tey jii nag dañoo ñëw seet euh, seet si euh, ñi nga xam ne ñoo nekk suñu mbokk safoor si ndax kenn ku ne xam na ne tali bi nga xam ne moom la ñu tuddee route de Niayes am na yenn pàcc yoo xamee ne ci biir tali bi yàqu na yàquwaay boo xamee ne jéggi na dayoo kon na safoor si ñoom am nañ un mot à dire niki noonu itam li nga xam ne moom moo jëm ci waa ci clients yi ñoom tamit am nañ ci luñ ci war a sànni ci ay kàddu yan jafe-jafe la ñuy la la ñuy jànkonteel ñoom ñi nga xam ne ñu ñoo nekk chauffeur si clients yi itam bu ñu jëlee li nga xam ne moo nekk rapide war dem fi nga xam ne moo nekk Kër Massar wala dem fi nga xam ne moo nekk Pikine dinañ jël temps trop ci yoon bi loolu lépp nag buñ ko naree euh, euh, teg ci table bi di nañ ko détail benn par benn chauffeur si dinañ wax li nga xam ne moo nekk seen jafe-jafe clients yi itam dinañ wax li nga xam ne moo nekk seen jafe-jafe niki noonu itam ñi nga xam ne dañuy jaay noonu ci côté tali bi tamit ñoom tamit nañ wax ni nga xam ne moo nekk seen jafe-jafe ndax ñooñ tamit ci la ñu bokk euh, poussière bi day euh, day day impacté ci seen produit yi nga xam ne dañ koy jënd su ko defee ñoom tamit nañ leen jox kàddu gi ñu daal di am lenn loo xam ne dañ ko ci wax léegi nag ñu ngi fii ak ki nga xam ne moom tamit ab chauffeur la mu ngi daw noonu ci yoon bi moom tamit war naa mën a wax li nga xam ne moom moo nekk euh, jafe li nga xam ne da koy jànkonteel ci kii bi ci yoon bi ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw ziar na la jaww den. mbaa yaa ngi si jàmm. waaw maa si jàmm bu baax a baax. yow sëfoor nga yaa ngi daw ci tali bi te gis nañ état tali bi nu mu nu mu toll. ban jafe-jafe ngeen di jànkoonte ni yéen en tant que chauffeur. oui waaw tali moom instant jànkoonte problème yi suñu jànkoonteel moom bëri na bu fii di ko wax sax duñ fi jógee parce que tali bi baaxul et puis xat na xattaay goo xamante bu la expliqué duñ fi jógee. waaw parce que chaque jour yow diggante parce que mën naa ne yëmbal la tournal yëmbal ñëw station bi ki nga tali bi ni ma mel baaxul kàmb yi yaatu na fii. oto dañuy obligé di jaar si mbedd yi bàyyi daal ñoom jàpp si quoi parce que moom ni mel ak ndox ak yoon yi ni mu amee ay kàmb di xat et puis na métti waay goo xamante ne gars na nañu si jàppale quoi ñun daal lool moom la jooy moom tournal yëmbal tey si mën a dimbal organiser ba nga xamante ni bi xataa bi foofu dina wàññe parce que timis bu dee timis jot na oto parce que da nga fii taxaw diran boo xamante ne yow da ngay obligé di jëlaat mbedd yi parce que ndax lan day xat loolu si bu baax a yoon yi moom metti na bëri na ay kii yu bëree bëri yoo xam ñu ngi ko si jànkoonteel xat na et waaw dagg-dagg yi bëri na surement nawet kàmb yi bëri na ndax ay suñu oto daal day yàqu daal si lu bëri daal waaw loolu daal lañ si mën a expliquer daal pour l'instant kon yéen seen seen oto faral di panne bu baax baax ko waral rek moom mooy tali bi yàqu-yàqu di tali bi waaw kese yàqu-yàqu kese moo tax suñu oto yi di panne oto yi tali moo waral oto chaque jour damu laam lu ne daal ndax oto yi tali bu bon daal suñu seen daal ñu si daal. léegi ministre bi nee na dinañ dinañ door liggéey bi. loolu euh, lan nga ci wax da nga ci kontaan. waaw kontaan naa si bu baax suma seen sax da siy gaaw quoi loolu amul lu waaj na gaaw na si gaaw jublu si daal parce que ñun loolu rek la xaar si moom quoi mu jàppaleñ si tali bi. yàlla bu baax tur bi bi. Euh, Pape Fall dëkk Yëmbal noor euh, Daaru Salaam 5 waaw. état tali bi ko ko gis xam na ne doy na waar trop yan xeetu jafe-jafe nga ciy faral di jànkonteel. waaw fii nag euh, yëmbal moom jafe-jafe yi dund moom metti na trop trop trop diggante ba gars yi euh, commencé seen travaux yi ba arrêté waat travaux yi si diggante station yëmbal ndax deux fois deux fois bi moo dem ba Malika mais waa Malika seen jëmmu bopp romb bu euh, benn baraaj ñi yëpp ñoom ñëpp a sonn quoi ba yegg si fi mu nekk loo xam ne dafa metti trop trop si askanu yëmbal daal du nawet ñëwatee mu nekk loo xam ne lu méttee métti métti la ndax dem du nekkee nawet dafa ñëw tamit maire bi waroon def devoiram ne na day xaar ay euh, euh, euh, maire Pikine yónnee ko ay camion mu ngàcce pour ndox mi mun fa mu nekkaat loo xam day créer embouteillage yi méttee métti métti yoo xam ne kenn mënu la ko wax daal waaw ëpp na ëpp na doy daal yàlla moo nag moo dogal sama tombé si yow taxul da gis ne yëmbal ñoo ngi dund la méttee métti ban arrêté deux fois deux fois bi waaw loolu nag lu def lu ñaan Macky moom président de la république mu ñëw taxawu ndax mënoo tam tàmbalee télé nga tàmbale ko agsi fii nga arrêté projet bi nga bëgg a tàmbale bi bëgg fay waa Parcelles Assainies ay ay nga bëgg faa def ay milliards milliards yoo xam ne diggante bi ndawul en plus yëmbal yëmbal yëmbal bi ñu ne dafa am ouverture na xoolee diggante yëmbal euh, euh, Fass euh, yëmbal Fass Mbao route nationale bi matul sa 4 kilomètres nga jël yëmbal VDN bi mais matul dara mais diggante diggante Esegna sa ak VD ak ak ak Gàddaay sa da ngay gis ne nit ñi mun nañ fa am 2 heures de temps boo xam ne maanaam teguñu ko fenn fenn lañ ko tegul waaw maanaam tamit. Euh, euh, lii yëpp tamit maanaam maire dafa euh, maire maire bi ñoom démembrement de l'état la ñoom ñoo war a informer gars yi fu nit ñi mën a toll mais coono bii ñu teg askan wi tamit teguñu ko fenn fenn leen ko tegul tamit quoi doo bëggee dëgg amul si amul dara li si dellu gannaaw yëmbal noor daaw dañ jaay dafu fi dara lu dul may ay kermes 31 31 décembre ba 31 décembre xaw ma zaaru fuura la xaw ma zaaru tànd biir te si wet station bi fii la koy defee te fii pétale nañ taal station essence bi place publique ñoom daf si alal ju bëree bëri bëri alal jooju taxul ba ba ñoom leeroon na ne si jamono jooju am na deux fois deux voies bu fi war a jaar taxul ñoom danoo jël euh, danoo def projet boobu fii ba ba projet bi ñëwee da koo dijjati xool fii amul place publique lépp la maanaam nit duñu la joxe réew da war a xalaat doo doo amul xalaat nga ànd ak ànd ñu am ak xel mais ak maire lu mu bon ba bon même duñu la joxoon ay milliards liggéeyoo war nga taal lampe dëkk bi war na set ñaar yooyu moom maire war na koo mën a mën waaw soxna si yow tamit ñu ngi lay nuyu Euh, maa ngi leen di fay. yow tur bi ak sant bi. maa ngi tudd euh, Juliette Gomis. waa dëkk Kër masaar tali bi gis ngeen état bi mu toll. métti na trop. waaw yéen en tant que cliente. Euh, ban jafe-jafe ngay dund saa yoo jëlee oto. waaw yëf moom métti na métti na moom trop surtout yoonu Caaroy bi nii. nga joge Kër Massar di dem Caaroy wax dëgg yàlla moom circulation bi dafay métti trop. parce que tali bi moom benn côté bi rek lañ ko defar ñu bàyyi beneen côté bi te loolu itamit nag jaaduwul. kenn du wax nag moom lépp mat na mais moom dangay ngay góorgóorlu rek euh, man su ma sañoon moom bu defaree beneen côté bi léegi xam nga mën nga defar benn voie bi léegi soo defaree benn voie bi ba pare léegi na nga waat beneen bi liggéey par étape étape rek la mais soo bëggee ne danga koy sóoru yëpp bu ko defee doo doo dem daal waaw doo dem liggéey moom moom danga koy def étape boo defee étape bi ba mu jeex léegi na nga defaat beneen étape bi mais nii nii nii ñu def nii wax dëgg yàlla moom yëf fii dafa encombrant trop waaw nit ñi si jafe-jafe rek la ñuy dund chaque jour ci jafe la ñuy dund moom waaw. su ma déggee kàddu yi daal dafa mel ni yéen a ngi ci yéen a ngi jànkote ay jafe-jafe guddi bëccëg saa yoo jëlee oto daal dangay ngay am problème. waaw waaw waaw moom moom moom saa yu ñu jëlee oto moom dañuy nekk ci ay jafe-jafe moom dañuy ja nekk ci dañuy nekk ci ay jafe surtout nawet bi nawet bi la ñu gën a sonn waaw nawet bi moom moom moom sonn nañu lool lool lool te te bëgguñu nag euh, nawet bi di ñëw nii nag mu fekk ñu nag mu fekkaat ñu tali bi mel nii li ko dalee kër euh, Masaar Malika bi noonu ba yëmbal ba Caaroy wax dëgg yàlla moom bëgg nañu mu mu kii mu fexe daal mu eggali ñu tali bi moom waaw. Euh, papa ñu ngi leen nuyu. na leen di fay. papa sa tur ak sa sant. man Abdoulaye Ndiaye laa tudd. yow chauffeur nga. chauffeur laa damay dawal. Eh, gis nga tali bi ni mu mel. route de bi. Eh, ban ban jafe-jafe ngeen di faral di nemmeeku euh, ci ci ci ci tali bi nii Eh, diggante mooy diggante fi ngeen di daw ban jafe-jafe ngeen di nemmeeku ci. bu jógee Kër Massar bay ñëw montagne bay dëgg dugg si yëmbal ay pax la dara baaxul si suñu oto yaa ngi yàqu suñu ab retul yaa ngi faq amuñu fu ñu jaar waaw amuñu fu ñu jaar tali dara baax danga dafa sa oto léegi andi ko léegi mu yàqu lépp ay pax la ak i kàmb. papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. Eh, yow tur bi ak sant bi. Maguette Faye laa tali bi gis nga nu mu mel poussière bi day jóg ci ñëw ci seen bagage yi loolu noonu jafe-jafe yi yow tamit dafa mel ni muyu la waaw moom daal tali bi moom ay jafe-jafe la ci nag it fii ñu nekk moom ah ñàkk pexe nu fi toog loo tamit ndax amuñu fu ñu nekk benn espace bu ñu amati pour jaay amuñu ko mun tax a toog fii ah defar tali bi intérêt la ci ñun waaye bu ñu jógee bu defar tali bi ñun ñi fi jaay it doon am fu ñu jëm kon lépp lépp jafe-jafe la ko ah ñu sant yàlla nag ndax ñëpp jullit lañu la ca des nag mooy ah ñaan yàlla ñu defal tëli bi oto yi man dama koy ñëw. Baye Fall ñu ngi euh, ñu ngi lay fay sëñ bi. Eh, tur bi nan la. Euh, ñu ngi koy wax sëñ Basirou. Eh, ñu gis nañ ni yaa ngi jaay fii nii ay casque ay euh, accessoires eh, tali bi gis nga nu mel poussière bi yàqu-yàqu te tali bi moom moo waral saa yoo tegee sa bagage rek lu mat ñaari waxtu rek bagage bi mel ni bagage màgget la. loolu noonu xeetu jafe-jafe yooyu noonu nan nga koy dundee. Euh, métti na trop métti na mais tamit ku amul li la gënal am la fa sës ñàkk pexe moo ñu bàyyi fii parce que taalib bi ban ko commencé yàgg na demul dikkul chaque jour tamit ñu dikk fii ñu ngi daggal ay ay juuti yu kenn xamul te defuñu fi dara chaque instant ñu dikk bëgg ñu fee jëlee te en plus euh, defuñu fi dara da ngay dikk wara liggéey ñu la tay dañuy defar doo gis dara depuis ba léegi ñu ngi nii toog suñu waree liggéey ñun tey moom da amul liggéey amul dara parce que dañuy defar tali bi barki démb xaw ma démb ñu ngi dikk ñi dañuy defar poussière suñ bagage yi defaruñ dara mais nag sonn nañ sonn nañ trop mais nag dañu amul lu ñu gënal parce que mënuñoo wax dara mairie baa ngi nii defarul bàyyiwul kenn xamul lu mu def te ñun amuñu lu suñ daan doole rek la parce que suñ bagage yi bu fekkee dañ ko poussière dañ koo tax dañuy dëkk di fomb bu dikkee bu xoolee mu tax bu war a jënd du jënd day dem feneen jëndi loolu mu ko waral mooy tali bu bon dañ ko war a defar wala ñu xool leneen lu ñu def parce que loolu moo ñu arrangé te moo moo ñu arrangé suñu bagage yi quoi. mbokk lii mooy li nga xam ne loolu lañ leen jëlaloon fi nga xam ne moom moo nekk ca Yeumbeul euh, Sud nekk fii ci euh, station bi. kon nag euh, gannaaw bi nga xam ne ministre de l'économie di Amadou Hott bi mu ñëwee fee ci ngan bi mu doon def fee nga xam ne moo nekk ci yombal ci place publique bu Yeumbeul Sud bi. newoon na li nga xam ne moo nekk route de Niayes bi dinañ tàmbaliwaat li nga xam ne moom moo nekk liggéey bi eh, ci eh, lu ci diir bu gàtt c'est-à-dire ci eh, début 2021 bi kon nag dafa jaadu woon ñu dem fi nga xam ne moom moo nekk ci côté chauffeur si ak li nga xam ne moo nekk apprenti yi ak li nga xam ne moo nekk client yi ñu laaj leen waa yëmbal itam lan la ñuy daj ci li nga xam ne moo nekk yoonu bi ñuy tuddee route de Niayes kon nag mbokk yi et toujours maa ngi leen koy wax yéen a ngi ànd ak seen chaîne préférée du banlieue info TV ngeen koy am ci internet bi ci www banlieue point com jërë ngeen jëf ba beneen numéro.